salaamaaleykum mbokk ñi ah, seetaan fii nag ngeen di gis rek mooy boutique ah, sopp Serigne Fallou nekk fii ci ah, fukki buntu ci ci Aiglon boutique bi nag nekk na boutique bi nga xamante ne ki ko jiite moom mooy soxna Marie Samb Marie Samb moom moom moo ko yor boutique sopp Serigne Fallou nag lépp loo xamante ne dafa jëm rek ci wàllu vente de tissu ak euh, mboolem xeetu tissu bi mu mënta nekk rek euh, di ngeen ko fii fekk fii ci boutique euh, sopp Serigne Fallou Mbacké di ngeen fa fekk ay jasneer fekk fa ay brodé fekk fa ay voile cuisse mais également fekk fa mboolem rek ñi nga xam ne dafa xeetoo ak tissu maanaam ci wàllu sañsi ak li ni mel li nag day yóbbu sax ci wàllu xew eh, muy fête di korité di tabaski di tam xarit ak fête yi waaye eh, ci ngénte boutique bi daal nga xamante ne moom mooy eh, boutique sopp Serigne Fallou nekk fii ci fukki buntu ci quartier eglon nekk na boutique bi nga xamante ne daal tere na léegi jéeg yi wala bokk ñii di xewle ci ay xew rek di dem Ndakaaru ndaxte lépp loo xam bu ñëwee ci boutique bi nga xam ne mooy boutique wu sopp Serigne Fallou euh, daan fi fekk lépp loo xamante ne soxla nañ ko lu jëm ci wàllu li nga xamante ne rek moom mooy sànce euh, ak li ni mel waaye nag am na li nga xam ne ci wàllu euh, dàll ak saak am tamit ci wàllu ay li nga xamante ne moom mooy ay cuuraay mais également am tamit li nga xamante ne rek toujours moom mooy ay cuuraay yi nga xam ne dañuy jóge ba Jidda ak Dubaay boutique boobu nag bu ngeen fa ñëwee maanaam lépp loo xamante ne jigéen soxla na ko rek ci wàllu taaram ci wàllu colin bi ak rek ci yeneen yi nga xam ne dafa xeetewoo ci moom di ngeen ko fi fekk mu nekk nag euh, ay produits yoo xam ne wala ay marchandises yoo xam ne ñu ngi jógee euh, Dubaï ak euh, Jidda kii di Marie bu yore ko bu ngeen ñëwee ay ndaw yu taaru daañ leen teeru teral leen tatagal leen ba lépp loo xamante ne yéen ngi ko fay wut rek di ngeen ko fa fekk foofu rek ci boutique sopp Serigne Fallou numéro téléphone yi nag su ngeen ci soxla ci ngeen leen di jotee muy 77 804 61 28 wala 77 79 52 64 wala ci 33 954 17 97 kon nag boutique sopp Serigne Fallou mu ngi noonu pour waa Thiès la waa Thiès ñoo ko moom.